asalaamaaleykum wa rahmatullah damaa bëgg ñu déglante tuuti rek bala bala ñoo tàmbali ñu def une minute de silence ñaanal martyr nga xamante ne ñoo faatu ci combat bi suñu borom yërëm leen taxaral rek àjjana gën dañoo dugg ci mbir mu am solo te damaa bëgg ñu déglante tuuti rek ndax ku fi dem nga am loo yóbbaale da waaye dama bëgg ñu te tuuti bala maa tàmbali di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi Cheikh Mouhamadou Mountakha di mu yàgg di ko ñaanal kilifa diine yi ci réew di ñaan di nuyu mboolem ñi fi di jiital ci nuyoo ak siyaar bi sunu coordonnateur départemental muy Ahmadou Lo di nuyu candidat yi nga xamante ni dugal nañ leen ci liste département bi muy honorable député soxna Fatou Mbodj honorable député soxna Khady Sow honorable député soxna Awa Seck honorable député Cheikh Bara Ndiaye honorable député Mansour Faye honorable député Lamine Bara Diop honorable député Bara Ndiaye Baba Ndiaye honorable député Birame Diouf boo gisee ma lim ku ci nekk ma jaar sa tur dadi fiñ tàmbalee moo sore Pastef am histoire mais Pastef département Mbacké am histoire ndax tey jii am ci bi surtout ki Moussa Sila dam na ànd ak ñoom Ahmed Lo tam dëkkoon Mbacké doonoon jàmbaare loolu projet tam faatu woon 2019 kooku tey jii bu ko yeewoon ne ko Pastef kat ña nga am ay député wala ña nga am ay ministre mën na laa bañ a wax déedéet kon buñ tollee foofu ñu ne Pastef ma ngay def élection département yi Sénégal yëpp am na fa ay liste mais am na ci département Mbacké ay liste buñ leen di présenté war nañ koo def ci anam bu mucc ayib moo tax Pastef yàgg na am permanence toogaay ñu dul la tuuti rek ñu yeggale kon bu ñuy dem ci élection yu mel noonu ñu ne Pastef am na liste liste boobu ñi ci nekk war nañu leen a présenté xam ne jógewuñ ci asamaan suñu def leen ci liste ndax daa am fuñ jaar bañ def leen ci liste yi foofu ñu jaar nag Talla Niang ak Maawa Mbaye présenté na leen du ma ci mais man li nga xamante ni dama koy éviter bis bu yàlla sàkk dama koy moytuloo ñu bëree bëree bëree bëri mooy diw daa am mérite moo tax mu nekk ci liste yi maa ngi profité di nuyu waale monsieur le ministre Moussa Balla Fofana moo yegg si léegi maa ngi koy nuyu te di ko dalal ak jàmm fii ci Mbàkke ak ci Touba. li muy rëy rëy ñun mooy suñu féete ci wàllu gouvernement bi ndax moo nekk njaareem di doomu njaareem di taalibu Serigne Touba moo tax tey jii ñu def ko invitation de zone pour mu teewee suñu cérémonie bi nga xamante ni présenté candidat yi ma eggale fi ma tolloon rek daal la ñaa wax na ko léegi. lim na candidat yi ñu investir ci liste département bi ku ci nekk mu wax sa jaar-jaar wax fi nga tàmbalee ba fi nga si mu dindi ko tuuti mais man li may wax te dama koy bañ li tax ma koy bañ tamit dinaa ci ñëw léegi mooy diw moo am mérite moo tax mu nekk ci liste yi pour man ñi investir ñoo ëpp mérite ñi investir kon parce que bu dee dafa am ku ñuy rendre hommage militant bi nga xamante ne dafa nekk di koyam di liggéey te soxla woon kenn ku ko xam kooku la ñuy rendre hommage kon maa ngi leen wax ngeen feer ci seen bopp te département Mbacké projet bi ñuy wax projet Pastef liñ ci amul benn département bu ko ci ci Sénégal kon bu histoire di bind histoire dina bind di departement Mbacké suyee ñu combat Pastef bi loolu nag bu leen xaar kenn waxal leen ndax jamono ji fëkk jëf bu bëri dee ko waxal seen bopp moo tax bi son excellence président Bassirou Diomaye Faye ñëwee Mbacké ma ne yéen waa Mbacké dama bëgg seen bopp li taxoon ma ne waa Mbacké dama bëgg ngeen seen bopp mooy bi jàpp dëkk ni produit yi niñ jàpp lu dëkk ci département Mbacké moo ëpp fuuf niñ jàpp lu dëkk ci yeneen département yi bi waxtu Macky Sall ñu jotee muy rey xale yi ñu rey dëkk département Mbacké bëri na lool kon sacrifice yi département Mbacké def ci projet bi loolu li ma leen di ñaanal mooy yàlla bu naax saay barke sëñ Touba ndax bu naax saayul naax saay nag du caagi ne mooy ñu am ay poste de responsabilité naax saay du caagi ne mooy ñu am ay poste ministre mais naax saay mooy li président Bassirou Diomaye Faye dégg woon ak Sénégalais yi a premier ministre Ousmane Sonko dégg woon ak yi ñu dem ba ca cëppaandagu ñu defal ko loolu mooy laas kon loolu nañ ciy dellusiwaat bés bu yàlla sàkk Bawol dafa jot mu nekk Bawolu si Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul li Sëriñ Tuubaa daal ñaan man dama foo sëy damay ñaan yàlla mu sottee ci loxoy président Bassirou Diomaye Faye te xam ne loolu dina am moo xam ñu fekk ko moo xam ne bañ ko fekk kon bu fekkee ne projet bi dañ koo fal fan mu mucc ayib département Mbacké suy juróom bu am solo ndax ci bisu élection présidentielle yi jàll président Ousmane Sonko bi mu watejee ba génn bureau de vote avant muy egg këram mën na njëkk a wane foofu war yi bi ma ko yónnee image dafa maa woowaat ma man sama xel daal mën na maa dem nelew te xam nga élection dañ koy kon mobilisation ngeen ak engagement ngeen dama bëgg ngeen bu baax baax baax baax bu baax baax baax kon boo gisee ma naan projet bi ñi investir ci liste yi ñi investir ñoo la ëpp mérite côté boobu benn la ci barki démb yi ma waxaat Dakar bi waa ko di def seen cérémonie boobu ñu doon def ma ne projet boo xamante ni dañ koo yëkkati ay bakkan faatu ji foofu ëpp naa wax diw moo am mérite ëpp naa wax diw moo am mérite bu dee am na kenn ko am mérite ci projet bi mooy xale yooyu nga xam ne dañoo di xeexal seen réew ba président Macky Sall rey leen ci àlloxo Antoine Diome ñooñu ñoo am mérite kon fii ñu toll nii nga xam ne moment nekk benn la ndax mënuñoo am liñ bëgg te nekkuñu benn loolu c'est impossible kon lépp luñ nekkoon benn dañ ko war a yokk war ko renforcer ba la 17 te ngoon ñu gagné département bi gagné bu mucc ayib képp kuñ dugal ci liste département bi à partir de maintenant mën nañ laa woowee honorable député man loolu maa ko département yi ci Sénégal yëpp bu ñu meloon ne département Mbacké mën naa ko wàcc yàlla ne majorité ci assemblée nationale dinañ ko am ba mu jéggi ndax fii combat amu fi ndax ku nekk ku wéet xam nga galaman département Mbacké combat amu fi ndax ku wéet xam nga kala man man de maa ko fii ci kanamu ak écran ci jël engagement mooy passé bu perte département Mbacké bu bàyyi politique passé passé la passé la patriote maa ko yi passé bu perte département Mbacké bu bàyyi politique leen daan def lañ leen defaat ñi ñu jàkkaar loolu mooy ASC mine defet benn benn argument lañ am mooy argument jéem ñooy diaboliser ak suñu kilifa yi ci Touba te loolu yaakaar naa du jàll ndax bu dee taalibe ñoo nekk ëpp bu dee bokk ci Sëñ Touba ñoo leen di gën a bokk kon jàpp naa ne ñoom ñi fi toog 12 ans te defuñ dara Touba ba Touba bu tawee ñoom kenn amu liggéey xale Touba yi mënuñoo faju kon bu fekkee ne ñoom waroon nañ di wax ci politique dañoo waroon lànk te waruñoo génn kon Pastef bu fekkee adversaire Pastef mooy Pastef mooy dañoo mën a dugg benn combat lañ war a am mooy jox majorité président Bassirou Diomaye Faye ndax ñun ñu nekk assemblée nationale xam nañ bu baax a baax a baax a baax saay saay si bu ñu amee majorité assemblée nationale moo mën a xew ci réew mi ndax nag ci diggante bu gàtt président Bassirou Diomaye Faye jot na fa ay loi pour ñu wote laaj leen ma ñoom lan lañ def jamono jooju ok mooy Pastef ndax ab département munoo bi ngay tàmbali mënoo woon a am mille fois yu dajale ngay xeex di jóg ko daal ñu leen xeeb naan gone yi jëmuñ fenn amuñ ambition ngeen jële mille voix yooyu yóbbu ko cent quatre-vingt-dix mille voix jàpp naa ne boo leen fi taxawee am ngeen adversaire yéen war ngeen xoolaat bopp baax baax baax kon gëm naa képp ku nekk ci liste département bi mën nañ laa woowee honorable député mën ngaa commencé nekk ci banque yi mën ngaa commencé tëdd nelaw te ne fii dañu koy kon élection yi ñu dëgg man ci laa wax tuuti day élection yu am solo bala ñoo tàmbali ñu ko Cheikh Mamadou Mountakha bëgg loolu lañ ko koy defale mooy Touba bu fa benn activité politique parce que jël na ay décision ak ay responsabilité bépp activité politique bu ñu def ci Mbàkke lañ koy defee ak lu wër département bëgg moom la ñuy def képp koo xam ne da def activité politique ne Pastef laa bokk ñu ngi lay ñaan nga respecté ndigal loolu nga xam ne Cheikh Mamadou Mountakha joxe na ko ba buñ fa def dara loo xam ne luy xotti war am na ci ñoo xam ne nag amul argument suba ba ngoon jot liñ xëttewoo mooy jéem leen a xool luñ leen taqalee yoonu murid wala ñu taqalee ak Serigne Touba te naa ne loolu sotti kon lépp luñ ci gën a moytu nañ ko beneen bi ñu toppaat tamit ma di ko waxaat président Ousmane Sonko muy premier ministre Ousmane Sonko dafa am bor bu ñu amee boobu gis nañ ne Kër Massar mooy pacte de Kër Massar boobu ñu suñante woon ñun patriote yëpp bu mucc ayib boobu keroog ca meeting ba bi mu paree damaa gëstu ndax yéen waa Mbacke pare ngeen pour ñu jox leen meeting le 10 février ma ne ko ñun waa Mbacke pare nañ mu ne ma ko dinaa fa ñëw bi ko antuwaat ñàkk ne Mbacke ko mu def tout pour wax préfet bi fi nekkoon pour ñu ne interdit manifestation ñëpp xam ne bi ñu dañ koy interdit ñun ñi ñoo taxaw ne kenn du ko interdit ba xeex ci bala jee xeex xew ci kon jàpp naa ne meeting boobu président Ousmane Sonko amee doon waa Mbacke dinañu ko fay ci élection yi Pastef nag damaa jàpp ne ñi ko jiite xamaguñ ba léegi Pastef jan doole la am Sénégal moo tax ñu yëpp ñu yëpp goo xamante ni du ñu wotal Dakar Arena ndax ku ci xam ne Dakar Arena la fa xew démb pour man yëpp waa Pastef la ak toroxal waa Pastef kon bëgg naa président Ousmane Sonko maa koy ñaan di ko ñaan waa parti bi mooy ñu jël stade Bëggey bi def meeting de clôture wala ñu def meeting de ouverture ndax département Mbacké loolu la soxla pour mën a démonstration de kon tey kàddu yi du gudd présentation des candidatures la woon te Talla Niang ñëw na ci ak Maaw Mbaye loolu duma ci dellusiwaat ndax buñ ne Amadou Lo mu nekk ci liste département bi kenn ku bokk Pastef kuy laaj kan mooy Amadou Lo buñ ne Jogomaay Jaw naka noonu buñ ne Soxna Faram Mbodj naka noonu buñ ne Xaalis Sow naka noonu Cheikh Thioro mi nga xam ne kenn xamu ko ci sax am na ñu ko xam ci département bi kon dañuy ñaan yàlla buñ ci duggee ci élection yi buñ ne suba dañu di gërëmaat ñi nga xamante ni ñoo nekk ci liste nationale yi te dëkk ci Touba ku ci nekk xam na ne Pastef listam bi mooy Sénégal Pastef listam bi Sénégal la féetewoo ndax bu ñu xoolee mouvement yi nekk ci parti bi benn benn benn benn benn xeet Sénégal bodduwuñ la ci ndax soxna Awa Seck mii nga xam ne mooy mooy la Lion de Pastef la ko ñëpp di wooye taxawaayam mate ko ak góorgóorlu bu mate ko engagement am ci parti bi mate ko mu jiite moo moo monap muy mouvement handicapé ci parti bi ñëpp gis nañ ñoo ni ñu leen delloo loolu ginnaaw ci xeet ñëpp gis nañ ni ñu leen doon minimiser kon président Ousmane Sonko bu ñëwee def ko ci liste bi def ko ci rek ngir da koo bëgg a def ci liste bi da ko ci def position boo xamante ni ñëpp xam ne ne yéene na ko pour nekk député kon bëgg naa yéen a baax a naa ne jàpp naa ne bu eggee assemblée nationale dina baax a baax a baax a baax o yàgg na ko def avant muy nekk ci liste moom député la kon bu eggee assemblée nationale yi continuer liggéey bi ndax rôle député la nekkoon kon bëgg naa ngeen tàcc ko baax a baax baax Cheikh Bara Ndiaye du ma wax ci moom ndax Sénégal yëpp gis nañ taxawaay li olof Ndiaye di wax naan lu ñëpp xam loo ci wax da nga koy gàttal taxawaay moo waral tey jii moom avant ñu koy def ci liste yi moom it député la woon ndax député du dara dul waxal askan te heure bu toogee ci télévision yi wala mu am antenne lu mu gàtt gàtt dina fa waxal askan yi ba ñëpp dégg na kii waxal na askan kon moom avant ñu nekk député sax député de peuple la day ñaan yàlla ngeen tàccul ko baax a baax a baax a li taala ñaa wax léegi ci biram du ci dellusiwaat damaa jàpp ne président Ousmane Sonko daf koo rendre hommage diw bu ne diw mooy suppléant président Ousmane Sonko rek Sénégal yëpp war nañoo xam kooku lan la ak fan la jaar ba président Ousmane Sonko war koo def suppléant moo njëkk doon coordonnateur Pastef Touba jox Cheikh Thioro mu wutu ba loolu rek doy yëpp la am doole mais Touba la ëpp doole ci Sénégal Pastef Sénégal yëpp la am doole mais Touba la ëpp doole ci Sénégal moo tax ñun waa Touba combat bii di combat Pastef duñ ci mbubb ak Touba yi mais jaaye damay ñaan yàlla nag bu ñu eggee le ñu firndeel ko di rendre hommage nag jeunesse patriote département Mbacké ndaw yi Pastef yi departement département bi maa ngi leen di xam ne Pastef biñ koy jël ñu au niveau département Mbacké liñ gënoon a compté wu mooy ndaw ñi ak jigéen mais ñëpp gis nañ bi ndaw di ñëwee ci projet bi liñ ci yokk amul kenn ko ëmb kon Madiaw Faye yaa ngi nga àndal ñëpp maa ngi profité ci occasion bi di leen rendre hommage bu baax a baax a baax a baax di rendre hommage tamit maa ngi Pastef Touba ndax mën nañu bàyyi mën nañu nijaay mën nañu maam mais dañoo boot roggantuñu heure bu jafe-jafe amee magi Pastef bi ñooy dugg ci groupe bi recadré ñu waaj nañu fii ngeen war teg seen tànk kon magi Pastef département ci njiital Moussa Faye maa ngi leen sant di leen a baax a di gërëm nag ak sant coordonnateur communal yi nga xamante ni ñoo nekk ci Pastef département Mbacké yëpp te jàpp naa ne lépp luñ doon joytu biñ gisee liste bi seen xol sedd na ndax liñ yàgg di joytu mooy heure bu ñuy def ay liste dañuy tëb commune yi te gis naa ne tey jii jël nañ seen doom muy jogamaay jaw jogamaay dinaa taxaw ci moom tuuti damaa bëgg ngeen tàccul ma bu baax a baax a baax ndax man nga ne ndax man nga ne jërëjëf ndax man nga ne ndax man nga ne Touba ak Mbacké Pastef liggéey na ci Touba ak Mbacké Pastef liggéey na ci liggéey bu mucc ay mais boo demee Sadio moom xamuñ jomaay xamuñ Sonko mais Diomaye Diaw rek xam loolu mooy dëgg ndax ñun dem nañ fa campagne législative 2022 dem nañ fa campagne locale 2022 bi mu jógee Europe fekkee ne lu ko jiitu liggéey na liggéey bu mucc ayib Sadio ku léegi muy laaj mairie ba mais waa Sadio ñoo dajaloo ne ko ñu wëluñ jox leen mairie Sadio muy wut liste bu demee loolu sa loxo boobaa di jox nag kaay jël sama liste mais moom moo choisiroon liste Yewwi Askan Wi dem ci gagné Sadio bi mu gagné Sadio président Macky Sall bëgg ko convaincre comme ni muy jënd maire yëpp mu taxaw ne projet Pastef laa gëm jënd carte de membre président Ousmane Sonko jël ko dugal ko ci bureau politique bi ba tax na tey jii mu taxaw ñu def ko ci kii man maa ko gën tàcc ma jox maa ñëw pour mbir soo ñu sant ko gërëm ko. kon monsieur le maire jox maa du war wax nan ngay def ndax ni nga def ah, ndax ni nga def Sadio moom ñëpp xam nañ nan nga kon maa ngi lay sant bu baax a baax foofu laa yëkkatee samay kàddu di wax rek ne salle bi tàng na. te ndaje mi yaakaaruñu woon ne nii lay toll dañoo jëloon di soirée bu ñu ñëwee présenté candidat yi teg suñ comité électoral jublu ci liggéey mais ñëpp gis na li nekk ci biir sax moo ëpp li nekk ci biir loolu nag xel bu nit ñi am la ak bëgg gu nit ñi am ci projet bi ak yàkkamti campagne bi jot may wax daal ne nañ ci campagne bi ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulillahi rabbil alamin te kenn bañ a gaañ non violence ndax nit nag du yor ab caq kon lépp luy xeetu luy provocation nañ ko moytu buñ duggee ci campagne soo mën a convaincre nga convaincre ko pour mu woteel Pastef bu fekkee da indi ay nga bàyyi ko fa dem sa yoon kon foofu laa yëkkati samay kàddu taala ñaa bu fekkee ne am na keneen cadre war a indi kàddu nga wax ko muy Moussa Bara Fofana après ñu tëj jotaay bi salaamaaleykum wa rahmatulah. maa ngi mbégte bi nag li ko waral bëri na bi ci njëkk mooy su ma màkkee di présenté sunuy député dama wax seeni député sunuy député suma xarit suma genn wàll sax laay wax boo xam ne lu ko neex neex dama lu ko metti metti na ma dañ lay invité yaakaar naa mbégte mënut a weesu ca tegu dama dégg ci ay ay kàddu mu ne Bawol dafa am taxawaay mu war a am bu mu taxaw ma lool ndax ku xam liggéey bi ñu dénk ci xam ne pôle territoire dafa war a lu ama am am solo su ma déggee sunu kilifa gi sunu xarit bi sunu leader bi wax ne Bawol dafa am mu war a taxawee damay gën a am mbégte li koy gën a wéral mooy démb dégg ngeen suñu président le président Ousmane Sonko mu ne campagne bii di ñëw campagne par pôle lañ koy def te loolu dafa war ne député yi bokk Bawol yëpp leader yi nekk Bawol yëpp war nañoo dajaloo campagne te meeting boobu ngay wax du doon meeting bu Mbàkke de meeting bu Bawol li mu représenté ci démographie Sénégal kenn xamul lu ko mooy région bi ëpp nit bi ëpp électeur donc ñun dañoo war a nekk benn yëkkatee ndaw di dóorandoo su Ousmane Sonko déggee waa Bawol xelam dal xam ne feneen lay am jafe-jafe xalaat waaye du doon fii li ma gën a bëgg loolu tam mooy jotaay bi rafet député yi seen présentation am na solo amoon naa yéene sax gën fee teew gën fee teel a ñëw waaye ñun ñaareel ñu doon teg suñu comité moo guddal wax li may wax rek lenn la mooy ñun ñëpp daañu ànd nekk benn su ngeen liggéey bi jubloo incha allah su ngeen gëstoo gis ñu seen wet ñu ànd doxal ko lenn rek moo am solo

Macky Sall tey mu ne yoonu yokkute suba mu ne SNDS donc ñaareelu at donc ñoo wax plan Sénégal émergent Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak président Ousmane Sonko juróom benn weer ñu génne audit bu clair ci réew mi tegal ñu agenda présidentiel loolu lan ñoo dama ne bu ñu gën a gore gis nañ le président de la république wax na premier ministre mu wax ministre des mu yóbbu ay loi pour financer Sénégal ñu dem assemblée ba bañal leen teg ngeen ci seen mu leer leer ne assemblée bii buñ fi tegee ñu ci warul teg projet bii dañu jéem a gàllankoor loolu est ko seetaan est-ce que ko seetaan am na loi yoo xam ne loi yu am am dañoo soxla trois quarts député pour mu jàll sans jafe-jafe

la ca des nag sëñ Cheikh jiitul mag ñoo ngi lay ñaan nga abonné nga bës ko notification loolu mooy tax vidéo mu dugal rek nga mën cee jot leen fàtte aimer partager jaa ngeen jëf عنين فإبليس في بحر ما ينبع